gannaaw bañ jógee ci kër prince bu Baye Karim ak xéwal yi nga xamante ni moom lañ fa fekk ngi nii ak uh, Ndeye Diouf uh, bu Serigne Fallou mbake yaay booy ñu ngi lay maa ngi leen di delloo ziar sant yàlla julli ci yonant bi sant sama ñaari waajur sant sama borom kër xaadim borom màggal gi sant nag alaaji Fallou mbake mi nga xam ne tey moo waral coow li ngeen fekk ma fii kër yaay puy uh, ma ñëw seet si sëñ Abdou Karim mu baax mi nga xam ne xam na ne sëñ Fallou mooy borom dindi. te ku ñëw ndindi xam ne màggal gi mu ngi ndindi kon bég rek lañu def bég. sëñ Fallou di sa waay. di sa lépp euh, tey bësam bi euh, bën yëg-yëg nga am en tant que soppeeb sëriñ Fallou koo xamante ni Serigne Fallou defal na ko lu ne. man Serigne Fallou ma dimbale bu ñuy wax ndey Juuf mu Serigne Fallou. sëriñ Fallou ko waral ndax lépp loo xam ne ci àdduna man peese naa ko rek Alaaji Fallou ma ko defal. lu ma wëy moom laa ko tuddee sant Serigne Fallou santati ko santaat santati. Eh, borom kër gi nag di seex Abdou Karim di kenn ci man ndax bëgg gi mu bëgg baayam bu baax ba bëgg ma ngir El Hadj Fallou ci man ndax bis la boo xam ne ki moom bis bi lim ma defal bu paasee ndey ak baay kenn defalu ma ko muy El Hadj Fallou ma fekk ci samay biiri bokk def ma ba may sant doomam ju baax sëñ Modou Boussa Dieng dama ko mas a fekk padduwaa ne ko Mbacke damaa bëgg nga ñaanal ma ma yokk mhm. mu ne El Hadj Fallou Mbacke sama baay boo ko bëggee te muy dëgg ci yow doo dellu ginnaaw kon loolu sëñ Modou Bousso Dieng waxoon ca Padoa mooy cantuk tey gii rek moo tax tey ma bëgg. Mm-hmm. sa digganteeg njabootu Serigne Fallou gi ndax tudd ki nga xamante ni moo di Serigne Modou Bousso Dieng uh, naka la mel ak ñeneen nga xamante ni ñoom ñoo njabootu Serigne Fallou gi. man njabootu sëñ Fallou xam nga sëñ Fallou doomam mi dañ ko bëgg ba nga xam ne képp ku leen bëgg man soxna Ndeye Mbène mu Serigne Fallou mooy sama buntu ci Serigne Fallou. Mm-hmm. dama mas di dem Màkka 2010 ma ne Alaaji Fallou Mbacke man ak sama borom kër ba bi ma benn photo sëñ Fallou ma ne ko bu ma amee ci yow benn cër su ma demee Màkka yàlla naa la fa gis mm-hmm. mbaa ma gis fa ko taq ci yow mm-hmm. bi ma demee Màkka bi ma demee Médine toog fa une semaine ñëw Màkka di gént di way Sëriñ Fàllu mm-hmm. mu toog ci benn pilian sol yëre cawali bi juróom-ñaari fan yi passé ma dem ci restaurant bi fi may lekkee service libre la woon man daje fa ak soxna Baali Muntaxa ma ne ko yow dem Mbàkke li ma waxoon Sëñ Fàllu xam naa nangu na ko ndax noonu naa ko bu ma amee cër ci la gis Màkka te gis fa lu taq ci yow te gént naa di ko way te gis naa la ngay doomi Sëñ Soyibu mu ne ma des na ñetti ñee toog ci taabal ji sëñ Fallou leen jur muy sëñ Mamor mi nelaw yal na ko yàlla yokk leer sëñ Xalil ak soxna maam say Mbàkke yaay yi su jenn ñooñu sëñ Fallou ñoom la ma booleel Màkka kon man Alaaji Fallou euh, sama waa kër dañ naan ma xam naa sëñ Fallou sonal gi ko sonal ndax man mbër muñ door ci làmb sax <laughs> ma ne ko sëñ Fallou waxal ci kii ñu ko rey dama ko sonal gis nga làmb gis nga yi bi ñuy football ci match yi passé def na ci benn kii boo xam ne sax kaay leen seetaan xale yi jël ko sama waa kër dugalal ma ko TikTok keroog bi euh, ñuy def final dama ne Serigne Fallou Mbacké nag yow moom sama xarit nga ku bii damaa bëgg nag mu ñëw damay xaddi de xale naan ma xaddi nag ndax football ak sëñ Fallou ma ne ko dama koy napp <laughs> ndax sëñ Fallou man bu ma demee bërëbu sëñ Fallou du ma du ma toog de xam nga sëñ Fallou dem bu mu toog naan ko sëñ Fallou defal ma li defal ma li dafa yàgg man su ma demee bërëbu sëñ Fallou damay jël sama addi dugal taxaw wax ko li ma bëgg ndax damay wax ak sëriñ Fallou sëñ Fallou di ma dégg lépp lu ma ko waxoon teg naa ci sama bët dama ko wéy ne ko visa yi ñuy tukkee ci xéewal la 4 x yi ñuy dawal ci xéewal yi la états yi ñuy dëkkee ci xéewal yi la bi ma ko ko wéyee ma ñëw fekk ko photo foto rek laay wax ak moom ne ko ndax loo ko wax ci foto dégg na la ma ne ko alaaji Fallou yi ma lax nag dara laa ci amul kër gi ma dëkk damay fay cent soixante mille par mois su ma ko fayul ñu génn ma ca biti oto bi may dawal du 4 x cent bi rek la visa Amérique laa bëgg France lay dem boo fekkee nag lii ma la wax nii bëgg nga maa sagal yii la wax naa ko am ma dem ñu teg ci 3 mois ma déposé visa États-Unis dem fekk fa ku tudd Fallou Bousso biñ ko woowee ci biir ambassade bi ndax olof la doon wax ndax boo mënul làkk francais wala anglais dañ lay yóbbu nga wax olof ñu woo sëñ Fallou Bousso ma ne sëñ Fallou ci ambassade Amérique bii man de dina am visa ñu woo sëñ Fallou Bousso ne Ndeye Fatou Diouf muy man nga ñëw ñu may ma fukki at ma dem Amérique 4 x bi ma njëkk a dawal ku ñuy wax Ablaye Seck taalibe Serigne Fallou la moo indi ñaari 4 x bu noir ak bu gris bi mu mu di ma jaay noir bi ne ma bii ma dugg sax ci nganu sëñ Mamor gi ci laa doon yóbbu sëñ Cheikh Awa Balla caatum sëñ Fallou Washington DC ma ne ko man nag bugguma noir bi mu ne noir bay jaay ma ne ko boo mënta jaay gris bi waaye boo jël sa ñaari 4x4 yi boobu bii doomi sëñ ko ñu waxaale ñu jaay ko mu wàññi ci njëgg téeméeri junne ne ma maa la ko dimbalee ci booy fay douane xale bi mu muy rasit ne ko ñaata ñuy fay pour dem si pour yóbbu ko Sénégal mu ne ko 1200 dollars mu ne ko maa koy fay mooy 4 x bi ma njëkk a dawal étage bi ma dëkk ci Scat Urbam maa moom ki ma am ko Sëriñ Fallou la tudd mooma luyee woon këram moo ñëw ne ma soxna Ndey dafa am benn terrain bu ñu jaay fii 35 millions ci na ko ma am ci xel mu dal kër googu xaw ma sax nu ma jëndee terrain bi ba tabax ko tey étage bi ma waxoon Serigne Fallou dëkk ci kon alaaji Fallou lu ma def daal man daal sama lépp ba bërki démb seetaan ngeen ko bi ma wootee Sorano dama ne ko yaay sama sponsor sponsor boobu doomam yëpp ñëw sama kër soxna maam say Mbàkke soxna nday mbeen soxna maam Marème ku ci ñëw rek xasal ma Sorano dafa fees ba kenn amul foo teg sa place sa tànk ngir alaaji fàllu Mbàkke ma waxoon ko wax bu rëy ba ne ko li sa baay ba bëggoon yaa ko ko defal mooy woy moo ko mujj wax mm-hmm. ajali ko màkka wooteel ko màggal gi yeggale jumaa ji kenn du alaaji fàllu Mbàkke kon sëriñ fàllu dimbale nañu daal mm-hmm. waaye nag uh, bu ñu ñëwee fii ci kër sëriñ fàllu Mbàkke uh, mu doon loo xamante ni ndaw ñi dañ lay bàyyi xel jamono doy waar xale yu jigéen ñu ci bari mënatu mënatuñoo téye góor góor ñu ci bari mënatu mënatuñoo téye jigéen tey ban conseil ngay jox ñi nga xamante ni ñoo nekk seen biir néegu sëy di sëy moom xam nga muñ la sëy benn neexu ci muy sama bos muy bosu keneen mhm. say euh, lu yàlla santaane la jigéen war ko def ak góor mhm. jigéen dafa war a am comportement boo xam ne war nga am benn jikko boo xam ne sa jëkkër du la yeb te du la xeeb mhm. te du la ñàkk a wóoladiku parce que sëy yu bëri bëri ci xale yi li koy tas mooy ñàkk confiance ndax boo takkee sa jabar wóoluwuloo ko wala nga am sa jëkkër wóoluwuloo ko sëy bi mën na am rëng-rëng yi waaye nag ñu muñalante te xam ne ñu baax ñi ba léegi ñu ngi baax fa ndox doon taa ba léegi boo fa demee fekk fa tepp-tepp du ñëpp ñooy baax du ñëpp ñooy bon foo dem rek am na ñoo xam ne seeni sëy waaye nag bul fàtte tam sëy yàlla mu ngi koy bind ci aras dafa am sëy yoo xam ne di nga sëy dafa am jigéen ñoo xam ne mun nañ sëy benn góor ba xëy faatu kooku rek la ñuy sëyal am ñoo xam ne yàlla nattoo na leen mun nañ am tey jëkkër amaat jëkkër mu tas du seen mbon du mbonu ko góor ki yàlla moo bind ne kii dina sëy ndax sëy du caaxaan mm-hmm. doom du caaxaan boo sëyee tas rek fekk na ne yàlla moo ne da nga war a sëy tas da nga war amaat jëkkër wala da nga war a amaat doom waaye daal ñu gën a góorgóorlu surtout nag am yar ami teggin ndax mooy tax nit ki dem fi mu bëgg dem ak gëm sa bopp nag surtout gëm sa bopp gëm sa bopp mënta passé mooy nga maandu odd sa bopp sër sër sër ndax sama papa doon na wax mu ne bu nit di ñëw di jënd ceeb palaatu ceeb nee na nga may ko dimi palaat mu lekk naan ndox nee na dootul jënd mm-hmm. kon xale yi nañ gën a takk seen sër te xam ne góor gi la bëgg du la fowee mm-hmm. du la caaxaanee waa loolu daal maa ngi koy digal xale yi. nga way lu ne xale yi am ci yow yaakaar xale yi tamit di way. musique sénégalaise jamono bii nan nga ko gisee. waaw musique ni ma ko gisee mooy mu ngi tegu ci yoon. parce que xale yi ñu ngi wóolu seen bopp ñu ngi gëm seen bopp ma ne ñu ngi gëm seen bopp ñu ngi wóolu seen bopp ndaxte xale yi comme tey xale boo xam ne nii comme tey fi musique toll bu njëkk musique bi wéy yi bëreewuloon noonu. waaye léegi xale yi dañu jëm ñu bare bari ñu ngi yëngu ci way liggéey nag du ñëpp nga ciy jaar tekki ci wala nit xam leen dangay gis nit di wëy ñu xam ko ci ñu xam ko mu am ci daraja am ñoo xam ne dañuy wëy te li ñuy wëy duñu leen déglu loolu yëpp yàlla la ku nekk ak sa destin yàlla mooy def nit ki wëy dara ñu xam ko boo rombee ñu ni wa nga ne loolu yàlla moo koy def ci jaam da gis ku mën a wëy koo xam ne yow nday juuf mi wëy xam nga ne kii di nga dégg nit muy wëy nga xam ne moo la dàq wëy waaye amul sens bi nga am pour ni romb ñu ne ndey fa nga ne tey boo ko dégloo sa yaram daw da ngay xam ne kii dafa mën a way kon affaire bi sens la rek destin la boo xam ne nii loolu mooy li nga xam ne mooy li li li li neex yàlla. yow xale yi kan nga ciy déglu jamono bi. man ñëpp lay déglu nag man ñëpp laay déglu xale yëpp samay doom lañ waaye saan xam naa ne Ami Collé Dieng wëyam tam daf ma neex torop ku mel ni Aïda Samb damay déglu wëyam euh, Titi Viviane ci xale yu jigéen yi xale yu góor yi nag moom ñëpp ma neex ay waali Sidi Dieng man daal dama bëgg xale yi ndax man samay doom lañ man yàlla dénku ma doom waaye dama bëgg doom bu ma gisee bëgg naa la parce que doom doom du doom bi nga bi nga ëmb jur ko rek mooy sa doom parce que mën nga jaboot man aw ma doom te maa ngi jaboot sama kër boobu demee day fees na sama yaay jur na gaañu lekkul suñu njëriñ am juróom ñaari bant tey faatu bàyyee ma leen ñooñu maa leen jur samay doomu papa samay papa gaañu na tuddee na ma doom boo xam ne muur naa ko ba mu sëy sama papa bi ma jur kooku maa ko jur kon am doom du jaboot jaboot mooy yàlla def la jaboot nga xam ne doom yoo xam ne sax comme yéen ñi tey samay doom ngeen ndax ñu ngi nii ñëw daje fi tey ngeen ñëw jël ma Ndeye Diouf seen yaay la loolu mooy loolu mooy njaboot <laughs> ban conseil ngay jox mu doon dernière question bi nga xamante ni moom la ñuy xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci langue musique yi bëgg a def musique euh, ban conseil nga leen di jox pour ñu dem jàngiwaat musique ak yàqante bi nga xamante ni moom la ñuy def guddeeg bëccëg suba ngoon mu doon loo xamante ni Sénégal yaa koy ñaawlu. waaw yàkkamti moom yàqati rek boo yàkkamtee da ngay yàqule képp koo xam ne li nga yëngu bëgg nga ci am ndam doo yàkkamtee sa dara parce que nit ki boo yàkkamtee rek da ngay yàqule voy du caaxaan musique du caaxaan il faut que nit ki am na ci nag ñoo xam ne dañ koy donn ba pare di ko di ko di ko def ba man ko man sama yaay moo nekkoon wéykat moo njëkk a wéy ndaamiloo rek waaye bi ma ñëwee Dakar sama yaay gaañu ma ñëw nekk ci ay digg métti tolof tolof sama yaay bi muy décédé mu ngi bàyyi bébé bu am deux mois gisatuma sama yaay coono àdduna dab ma ma ñàkk sama waajur te ku nekk xam na ne jamono ji bëri na ci euh, boo ne boo ñàkkee waajur doo bëri cëslaay torop dama daw ñëw Dakar bi may ñëwee Dakar sama rakk feebar ma indi ko waaye bi ma ko fajee ba mu tane amatuma beneen feneen leneen lu may def parce que gisuma fu may làqatu dama dem wuti liggéey mbindaanu ñu may fay 16000 francs may mbindaanu di fayeeku moo tax ma bëgg xale yi gëm seen bopp parce que man dama mbindaanu fóot ñu fay ma 5000 da ngay fóotal nit sax mu ne la fóot mi setut nga togg ba lakk sama loxo bii xam nga dafa lakk niroo wut ak bii togg ma ko yóbbee xam nga euh, moo tax bu ma amee sama jànq yi nekk sama kër dama leen di wax ne fii mbindaan du fi jooy ndax seen patron bi moo leen gën a njëkk a mbindaan mm-hmm. du ngeen jooy am naa sama jànq boo xam ne am naa man fukki at ak ñaar barki Demba Njaay bi mu amee doom sëriñ Fàllu Mbàkke la jël may ma tur bi ne ma comme yàlla dénk la doom te da nga bëggoon sëñ Fàllu may naa la ko nga tuddee ko sëñ Fàllu man maa ngi ci fukki turandoor ak ñeent yu ma tuddee sëñ Fàllu ak sama vingt-huit yoo xam ne maa ko moom yoo xam ne nday juuf lañ tudd kon boo ko bëggee góorgóorlu gëm sa bopp xale yi bu ñu xàddi gis nga liggéey xam nga lu bon caaxaan yàq sa bopp foye sa bopp amul mucc waaye gis nga liggéey boo xam ne dafa dagan gis nga 16000 yooyu ñu ma doon fay ci laa bokk benn natt boo xam ne 10 mille francs la woon di ko natt bu ma teggee jël euh, mille yi jëndal ci sama rakk boobu noonu ay kuus jëndal ko ay ay ay li mu soxla pour lekk ndax fi ngay liggéeyee d'accord la jël nañ la pour nga liggéey fa ak sa rakk waaye bu ñu la daggalee mburu duñ daggal xale bi am na ñoo xam ne sax duñ bëgg jël ko yor xale te dañ doon foog na maa jur xale bi te juruma ko waaye dama ci doon def loolu natt 10 000 10 000 yooyu ci laa natt natt natt ba teggin benn natt muy cent 000 ma dem Banjul di jënd ay pantalon jean ay body di ko jaay di leble ba mu gi may dem di jënd ay cuub di yóbbu Banjul di jaay commerce laa njëkk def ba sama xarit bi ñu wax Mata si Diallo produire ma sama album bu njëkk bi ma njëkk a way Serigne Fallou ci sama yaay may ma Papa Ndiaye kon xam nga nit ki boo yàkkamtewul sa àddina rek lépp day baax moo tax xale yi maa ngi leen di diggal ñu góorgóorlu téye seen personnalité buñ nangu kenn yab leen gis nga alalu àdduna jarul nga perte sa personnalité ku la may jéppi la rek xeeb na la bu ñu xëccoo alal di topp nit ki forcé ko pour na la may ak foo jot dem te duñ la fa woo topp nit di koy sëkkatal géwél du jaam may ma li nga koy ñaan am na ko mën na am sax te géwél a géer amul man damay wax sama géer ñi ne leen man géer gu ma ci tane dimbale la am naa sama xarit yoo xam ne danaan yaay yaay sunu géer parce que lan la samay géer lañ waaye da ngay xam ne seen doole bariwul li nga am mu néew mu bëri nga dimbale ci say nit parce que du affaire géwél rek géwél moo war a maye géwél géer ma ko war a may géer gi la war a may amul tekk sa xarit yaa ko war a dimbale pour jàppale ko moo tax ñu gëm suñu bopp am personnalité yëg sunu bopp ci respect sàmm sunu diine am ngor am diine di jàpp di julli ci julli di def li ñu war a def bu ñu ko defee rek lépp baax màggal gi daal li ma la ci mën a wax mooy ñu ngi kër yaay puy ci borom bernde yi yu neex yi nga xam ne togg yàq kenn du xiif kenn du mar toppatoo ñëpp sëñ Abdou Karim borom màkkaalimal axla sama waa ji kenn du moom kon sant rek ci barke Alaaji Fàllilu sant sant sant sant